wér eh gaawal waaye boo gisee xel yi ngay daw fi ah. ban yàkkamti boo boo ñëwee virage dañuy rey. ba pare ar yow dañ bëgg a nga bëgg fay daw cent ku ma moto bi. ana patron. ban patron. eh waaye ki doyen bi. day nga borom bi buur. waaye eh, mbay soo mais patron moo woote ci moom laa jëm. non wàccal wàccal wàccal wàccal ay non mais mais yéen tamit. non wàccal. na wàccal foog nga wàcc. na ah, birul de. birul de. ah bisimilah boog. man ne biir damay rey. non non wàcc. waaye. ab ab glace moo tamit ne la. ayca dama. waa gars yi na biir lan lañ xew na biir lan lañ xew. li xew. da nga ko xam. du Garga ak borom bopp bi. moo xew mais patron bi moom moo ko lay wujji. heure bi ah. heure bi waaw. ka ndogu ji wa. enquête damay ndogu ci kanam tuuti. te dégg naa doy rek attention ñii ñoo. kenn seen ndogu kenn daal reer la rek. mais trop bëri na affaire. fekk def kat añoo yu baax. kat lan kat rek lay def jaar marché ma dikkee maa ngi nii téléphoné Babacar Fall Mbari mi koy indi. trois quatre añoo rek def na jaar marché la dikkee jënd jënd fruit def na ñetti ñetti carafe soow yu baax <laughs> yoo xam ne yoo xam ne bët mbambiro laa commandé alaaji Lamine Ngom mi ngi koy indi. léegi garab garab bi bàyyi ko yow tamit. waaye ñun moom lu ma su ma sànni dëgg pro 3 millions day fi nekk. lépp mais ndogootul doyen. waay garab ndogootul non ndogootul non ndogootul yow tamit moo nekk. lim lim de. waaw te te ndogu ndogu lay wax. non ndogu ko réeragul. réer moom 3 heures du ci la noo def nag ceeb bu gën coof yu baax ci reer nag mu mu li na nga doog a tëdd. <laughs> waa ji de. waay waay waay ji borom ne bii rek nga soo leen soo daal ñu ndogu ji. xam nga ay régulateur lañu. Ah. keroog bu ministre bi dàqee mënoo la géwéli kon doo dellu si. waaw ñun ñoo fexe ba nga dellu ah kon nag waxtaan leen tanu ndogu ji. loolu moom man ministre ba moom. Ah. daga daan doon na biir. foofu moom biir na. te dama invité communicateur traditionnel yi. waaw El Hadj Mansour dafay ñëw Abdoul Aziz Mbaye Maam Fama El Hadj Lamine Ngom <laughs> Bërgël Mbambilor El Hadj Lamine Thiam Thiam Dogo <laughs> borom dëndi El Hadj Lamine Mbaye bët géwél la El Hadj Taxe Samb bët géwél gànjool ñoom nag ñoo fi bëgg a daje war fee ndogu. waaw déet man xam nga lu ah, waxtaan leen lu moom mi nga xam ne moo cay jeune. Ah. waaw léegi nag kacak ëpp mag nag moom lu muy ndogoo. waaw kay laay laay la la kooku nag moom bés bu wootee ndogu <laughs> dara rek lay dagg. te <laughs> fàtte gi ñëw. fàtte nga ni bi la bi la fois gis nga ne moom moo moo ci comité cadre traditionnel yi. ku ku ku ci ku ci kii la. troisième millionnaire. mooy troisième millionnaire. moo tax dama déggoo leen film yi. xam nga ne ab jeune buy ndoxoo lool. waaw kooku giriyoo bu mag ba suñu papa Mansour lan la war a ndoxoo. waaw kooku lan la war a ndoxoo. lu tuddee lu tuddee li màggal. mais daal waxtaan leen. ba juboo. man daal suma sañoon daal ngeen ngeen abandonné poste bi ñu ndogu ji. xaw ma nag noo leen di def léegi doy restel man daal bàyyi naa leen fi daal restel bàyyi ma dem maanaam dégguma la de. ma fi man ma bëgg a du man maa biir. waaw du man maa biir. waaw man la ministre biiram. waaw ba ñoom gar mi ñëw biiral ko mu biir. waaw waaw léegi doo ba ma biir googa nag ca ba bëgg a biir. ah da ngay a biir waaye biiragoo. waaw waaw danaa nag. doo ma biir lenn a xamal nag. sàmm nga fu nu wax nga ne ma la seef. yilif dëkk bi bu taxee ku wopp nga rendi koo waxtaanal dana ku la seef damay demaa. Ah. waaw da mooy ba fii dama am. damay dem biir yow lan la ku damay biir ah waaye na biir garab mi bu ko defee xale jigéen yi dar ko bu ne ay mbaay xale jigéen yi mab bu ñu garab Sénégal am bëri tappalekat waaye xaw ma ku GFM Futurs Médias non xaw ma ku ku dajale ponkal ña fa de waa ji mën a tànn fa de kooku mën a tànn ay ñoom garmeek Abdou Aziz Mbaye ak Pape Thierno Ndiaye doy waaw waaw jaayal gaa daan dem man laa wax man waxuma fenn. ak ku ma tànn léegi waa Tongué ma ko seet wuy sama ndey doxal ak